bokki julli ci gannaaw ba nu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla noonu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñu diggante ak suñuy moroomi jaam ba ñagg-ñagg yi am ñu di ko xoolante ba yowmal qiyaama tax yàlla di wax ne bala kenn dugg aljanna day am lu muy génne ci moom te loola lu mu séq lu muy séqale ak digganteem ak moroomi jaamam ñi yàlla na ñu yàlla tàggaleeg moom fii ba bu ñuy dugg aljanna it yàlla na ñu ko yàlla defal ñu doon ñoo xam ne dañ naan ñu dem leen rek ñu dem waaye duñ dem ba ci digg ñu ne wàññi ko waat leen ñu wàññi ko waat ñu am luñ dindi suñu mi door a dem yàlla na ko yàlla defal tomb bi ñu fas yéenee waxtaane tey fàttalente ci loolu mooy li ñu fi indi te moo nu fi bàyyi ni ko mel na mag daan waxe li ñu fi indi bàyyi nu fi mooy ñun ñëpp ñu maase di jox yàlla saa su nekk cër bi mu am ci noonu moom moom lépp de waaye waxin la léeg-léeg dañuy dox suñuy soxlay bopp te fekk fañ jëm ak fi ñu bàyyeekoo fépp yàllaa fa nekk moom moom lépp waaye nag daa am loo xam ne saa buñ ko ca bëggee wutal ndend walla jox ko lii téye la ca des maarade bi sa daf ñuy bàyyee ak lépp te duñu amal benn njariñ tawxiid wéetal yàlla ci pas-pas wéetal yàlla ci jëf li dox diggante nit ki ak yàlla yàlla xam na ko mu xam ko yàlla sax xam na lu dul loola waaye ñoom ñaar bokk nañ ko xam waaye liy dox diggante nit ki ak yàlla nag nit ñi war nañ caa mën a xam dara ci kaw diggante jëflante nit ki ak moroomi jaamam la lim fas digganteem ak yàlla daa war a feeñ ci digganteem ak jaame yàlla yi xam ne yàlla bindul dara bindul kenn te fekk amu ca benn soxla wala amu ca seen soxla moo tax bu tawxiid tegee ne ci wax ak jëf ak pas-pas day am lu jàkkaarloo ak moom di wujje ak moom ci jaam bi ci pas-pasam ci jëfam ak ci waxam muy bokkaaleeg yàlla yàlla na ci yàlla musal yàlla nee na mën naa jéggale lu nekk mën naa jéggal jaam bi lu nekk ci lu ko jaam bi fu ko jaam bi dëkkal te waru fa waru ko fa dëkkal lu mu yekk ci daram te waru ko caa yekk ba mu des nag wutal ci xolam bi benn place bu dul yàlla ñu ba ñu war a faa bokk ñoo nekk ñoom ñaar yàlla nee na loolu moom du ko jéggal kenn day génn bàyyeekoo fa ak pas-pasam boobu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne dafa daje ak boroomam bis daa dikk ab digam jot mu faatu yàlla toog loo ko fi barab muy xaar ba ba muy woo ñépp leen àtte ñenn ñi ci seen jëf ñenn ñi mu àtte leen ci ak maandoom la muy jëkk xool ci téeréb kookee yàlla moo ko tudde ab téere iqra kitaabak kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba wa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura kenn ku nekk kon téeréem boobee su ko yàlla wëlbatee wëlbatiwaat ko wëlbati ga muy wëlbati kayit ya tekkiwut ne su ko wëlbatikuwut su wëlbatiwut kayit par kayit du xam ci waa ji dara waaye àtte daa laaj ak maandu gu mat sëkk ak yam war a àndal yépp wala sax mu ne waa ji dàngalal sa bopp ma dégg mooy ayab alxuraan boobu suy jàng nag fu way toll da koy dégg rajo yooyu muy gën a neex fuuf rajo yi may waxe léegi fa muy taxaw mooy gën a fës fi ma taxaw rek waaye su jàngee ba àggal dégguñ ca benn tomb waxumalaa aw aw aw xaraf waxumalaa ab baat buy tegtale ni moom bi muy dund daa am lu mu bokkaale woon ak yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku aljanna mooy daal doon doon këram mooy fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura waaye nag suy jàng te la muy jàng dara leeru ca yàlla lépp daa leer ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyi fi alquran su fekkee day jàng la muy jàng dara leeru ca la ca ëpp foog naa jortu naa demlee li ñuy wax zanna ak i bokkam daal kese yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooka fa saasa day xam fam jëm yàlla na ci yàlla musal bokkaaleeg yàlla nag xaaj yu baree baree baree baree baree bare la waaye ba ci gën a yomb a xam mooy yàlla joxoñ ne nañ jëm penku nit dëgër bopp ne déedéet sowu la ndax ab joxoñam fële la jëm mu ne déedéet daa am ñu joxoñ fa sowu daa mel na sowu moo gën a neex aw yoon moo gën a yomb a dem yàlla nu ci yàlla musal yooyu bi mu demee ba bari jiitu na lu yàgg suñu jamono waaye ñun yàlla nattuñu ñu taseeg jamono joo xam ne ji li ñuy wax jamonoy fitna ak jamonoy tàggoo fitna yàlla waxoon na ci alquran ne teg nit ki fitna daa den la fitna ak ak rey rey nit ki dee ak dee daa dina dee léeg-léeg mooy gën a yomb moo gën a sedd fitna ndax luy dal nit mënu koo teggil boppam kenn mënu ko koo teggil te xam na ne ci moom la jëm si wala dal na ko ba noppi yàlla na yàlla musal ci fitna dara weesuwu ca nag kenn ku ci nekk wut ab ruqam woote fa te saa buñ dajee mënu laa wax yàlla nee na ju leer mënu laa wax yonent bi nee na ju leer la ko tàmbalee ci yonent ba tey ji ba ci Serigne Touba mënu la see wax lenn lu leer lu dul dana show li ñuy wax show daal xumbal jataay bi ba mu xumb rek ñu jóge fa dem waaye kenn du fa mën a jële dara loolu ci fitna yi ñu yàlla nattoo ci suñu jamono la waaye ay xalaat judduwaat ci jamono yu bes paq te benn boroom xam-xam waxoon na ne Sénégal day suuf soo xam ne dafa nangu pas-pas ku taxawoon ci mbedd mi yuuxu sax nit ñi wër ko mu ne boo xëyee juróom-yaari yuux bu timis bu timisee juróom-yaari yuux waxtu sangam séddale yuuxu yi ay ay waxtu mu daal doon diine léegi nit ñi topp waaye it kenn ku ci nekk am na fu mu sàkkal boppam foo xam ne sàkk gam ko sàkkal boppam ci xalaatam dong la ko teg ndax daan ma gis ne loolu lépp nag suñu ko boolee ci tënk bëgg ay intérêt lay daal di tekki ndax fu mu dem bu ci gisut boppam dem feneen di wër day mujj dutu jëm fenn day mujj mel ne xob bu ngelaw liy wëndeel rek fu ngelaw jëm mu jëm fa waaye ku mel ni xob ba fa ngelaw jëm mu jëm fa mën naa dugg ci pax moo xam du ci mën a génne boppam te dana ruqi ba kenn du ko gis ba mën ko caa génne yàlla nañu yàlla musal ci loolu maa ngi waxtaanee fàttaliku gi doon fàttaliku démb ñibbisi Sëriñ Tuubaa ci Tuubaa radiyallahu anhu mat na juróom-ñett fukki at ak juróom ñaar ci ren waaye indi ga ñu ko indi Touba la mu àndal ba tax ñu di ko fàttaliku tey Serigne Touba borom tawxiid dëgg la ndax lan loo xam ne bi ngay dund da nga koo bàyyi woon ci loxol yàlla fu la fu fu mu jëm fu ñu ko ne kaay ñu dem mu ne yàlla négal ma déglu sama digalu sama borom moo koy tax a takk moo koy tax a tekki bàyyi ko adduna ba mat juróom-ñett ñaar juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar mbooloo moom àndaloon gën a dolliku ñu gën a am pas-pas di ko gën a bëgg loolu dénk yàlla sa mbir dong moo ko mën a may nit ki waaye gannaaw Sëriñ Tuubaa nag bi mu amee juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar bi ñu ko indee Tuubaa ana booba ba tey luñ def ci liggéeyam ba ak luñ ci sottal danañuy wax ñàmbaru Cheikh Mamadou Moustapha tamit dëgg ndax fa mu toll woon ci ay at ak jamono nam naqare woon mu yanu yan ba Sëriñ Tuubaa yar woon loola ak njàmbaar mënu koo weesu waaye nag faggu teefu Sëriñ Tuubaa la danañuy wax ne maa ngi ko jàng ci mbindum sëriñ mët la mët mët la mun jóg dagana ki ma jox mbind mi kaka ko jox sëriñ mët la mun jóg dagana moo ko ko jox saa su nañu fàttali ko loola dañuy nett li jaar-jaar bi sëriñ bi jógee njëreem ba agsi Tuubaa waaye dañu koy tëb ndax léeg-léeg dañu dëppoo ak nit ki di sa gis boppam ca la muy woote bokk yi bi ñu ko indee Tuubaa muy jamono yoo xam ne ñi ko séqoon ca jamono jooja takkoo woon nañu ak moom takkoo koo xam ne ku dul Sëriñ Tuubaa itam dëgg dëgg boo takkoo ak moom noona bisu kero war naa feeñ ci sa jëmm nga def defin woo xam ne xamee su ko woon ci yow waaye Sëriñ Tuubaa da doon liggéey di dénk yàlla bàyyee ko yëfam ba ñu ko indee Tuubaa bay def li ñu sant ci jullit mu def ko mbokkum jullitam mu fi bàyyi ko ba ñu koy defar ba àgg ci jal jal boobu ñu jaral ab jullit ñu di ko wax tasniim jigéenal ko daa tese kemm waxtu julli suba jot suñ mët la mit nee na naar ba àndoon ak ñoom te bokkoon ci ñu Sëriñ Tuubaa fàggu ngir bés moo ne ñukk lam doon def te moom ma nga woon ci biir pax ma faxasi loxoom ba mu set mu nodd nodd gu kawe ñoom ñëpp ñu bàyyi lañ doon def julli suba julli gu teey nañu ko doon jullee wax na ne ñi ko yëg ci Tuubaa te yëgaluñu leen ko yëgaluñu leen ko woon seen julli gu yàgg ga ak seen tasab bañ doon def bañ jullee ba sëlmal moo ko yëgal waa dëkk bi ndax dañoo xool seen ba mbooloo ma ñu ne rocc toog ñuy ñëw ñëw par benn par benn ba doon as mbooloo moo ne bu doon jamono de jamono tey de mën nañu naan am nañ ngàntul dañ àggale gaaw waaye bañ sëlmalee suñu mbakki bu sa danaa moom kat moo nañu woon lu ngeen man di nekk su waxtu suñu borom jotee na ngeen ko jooxe bàyyi la ngeen doon def dindi lu na ci dindi lu na ci ba tàyyi ay sàkk dañu sàkketoon far na ci mbind mu ñu ko bindaloon tuur na ci ñam wu ñu koy toon wax na ci mbirum si mbër leen job daga na ne lépp loo xam ne dañ ko koo yët te ba ñu koy fàggu faat nañ ca waxtu bu ñu ko boolee ci alalam bu fi jógee soxla wu ko kon ñam fi bàyyi woon moo xam muy ñu fekke woon bis boobee amoon nañ waajtaay bu mat sëkk woo xam ne lu xew dañ naan yàlla ko dogal rek tawxiid ju wóor ju dëgër ba jëmmi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ku ci mel ne suñ bakk buus rek maam Cerno suñ fal suñ Basiir ñoom ñu ñëwoon Sëriñ Tuubaa la yaral yaral boppam ci loxol boppam liñ takkook moom jotuñ ko fee takkook kenn gannaaw Sëriñ Tuubaa waaye ñoom ñëpp lañu na dégg ba def ca lañ cay def ba delluwaat ku nekk delluwaat këram nag lu ko soob def waaye lii moom danañ ko def ni leen ko Sëriñ Tuubaa santaane woon ni mu leen ca formé woon formé mooy tabax ba loolu war nañ koy fàttalante di ko fàttaliwaat di ko fàttaliwaat di ko fàttaliwaat loolu nag lu tax laa jóg gannaaw bu sëriñ bi demee bañ indi ko Touba juróom ñetti fukki at ak juróom ñaar ana luñ ca def ci laa jëm si nii jamono yu ñu weesu yëpp dañuy dégg lenn ci ay njaboot ñoo xam ne ci njaboot gi dañuy bokk di ay doomi murit yoo xam ne tey na si ëblaat waxoon ba muy wutlu chef de village ay années soixante-dix ne nañu ma wutal koo xam ne ku dañ ak réer lay doon mën naa bañ a doon salma chita waaye daal ay farataam moom ràññee na leen xàmmee na leen te ku ko ca laajit bu mën la caa wax benn ñaareel ba na doon ku suur koo xam ne kenn du ko mën a jënd kenn du ko mën a xoymat dara ñetteel ba na doon murit boo xam ne buñ doon rey murit yi du ma murit du tee ñu rey ko suñ doon rey murit yi du ma murit du tee ñu rey ko ndax ñépp xam ne ak muritam fan yii nag am na doomi murit yoo xam ne suñu leen tëraloon teg paaka ci seen baat ndax murit yi lañuy rey tey duma murit du leen ca génn ñoom la ñu def nag mooy yëkkati ay kàddu yoo xam ne yàlla nee na nekku ca yonent bi nee na nekku ca Sëriñ Tuubaa nee na nekku ca waaye seen waxi bopp la kon daanaka loolu du waxi dara ñuy def lu ñuy wax chantage mën a gagale suñ ma defalul nangam nangam ak nangam ak nangam dana am intérêt yi ma waxoon daal di ñëw koo xam ne dañoo yaakaar ci moom tey su téere yépp lakkoon waris naa mën a yaakaar ci moom mu bindaat leen bu nekkoon ci yoon wax du am jot koo xam ne mboolem masala mu lënt moom xam ni ñu ko tàggalee ni ko ñenn ñi tàggalee naan diine ak àdduna lu ca dem ba lënt ba tëtit tëtit dañoo war a ñëw ne ko loo ci xam mu kàggati leen su jaaroon feen waaw du am du am jot koo loolu nag yaare wàll la am na ci wet goo xam ne Sëriñ Tuubaa daf caa wax ak ndaw lool wax ca ak way juru mag ndaw loolee muy luñ séddoo am na ñoo xam ne dañoo tànn politique bi di ci wax te ñii politique xàmmeewuñ leen ci politique ñooñu kon bokkuñu fenn génn nañ fii te bokkuñu fenn liñ ciy wax amuñ ci benn xam-xam defuñ ci benn calculu ëllëgit lu leen ca mën a fekk lu dul xaalis lañ jël teg ci seen kanam ak ci intérêt yoo xam ne buñ ko amee it xamuñu luñ ko doyee ndax amaguñ soxla su ko mate loolu nag su amee amaat dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoom la seen baat kawe lool mën naa am yëguñu ko dégguñu ko àgguwuñu leen ko waaye jumaa nag da cee am wàll lu mu ci war a wax jullit yi leeral seen bopp li ñu leen ci war a leeralal mooy loolu li koy waral dañ koy séddale ñaari xaaj wax nañ ne tawxiid borom xam-xam yépp jubóo nañ ci kum tàmbalee manque ci moom maanaam yàlla tàmbalee génn ci moom mar dem si pas-pasu yàlla gëm yàlla teg yàlla fa mu ko war a teg dafay bëgg daal di nekk moom lu jub mu ne maa ko yeyoo mën nañ ko war a defal dañ maa war a dañ maa war a dañ maa war a te moom gëmut ne dara da koo war a ci dara dara waru ko ci dara place yàlla moom ku ko bëgg a jël mooy kooku rek yàlla moom jaam bu nekk am na lu ko war digganteem ak yàlla te yàlla dara da waru ko ci jaamam mu gën a leer moo tax yàlla na ci alxuraan ñi nga xam ne maarade dañoo tàmbalee ñàkk tawxiid saa boo neen yàlla nee na yàlla nee na bu yàggee tuuti nga gis seen kanam yi ñagas lool ñu mel ne ku mer di xool seeni montar bëgg wax ji jeex waaye nag soo duggee ci politique bi walla weranteewu àdduna kese kese nga gis ñu tàmbalee belli di tàmbalee indi ay argument lu ne ñu am ca xam-xam leeral ko waaye yàlla nee na yàlla nee na kese kese moom loolu nag kum dala gudd na ko defam nattukaay ba xam tawxiitam fu mu toll maanaam nangoo déglu waaraate nangoo déglu alquran nangoo déglu ay qasaid nangoo déglu xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu koy toll moo ne Sëriñ Tuba day mi ñu indi Tuba ñaanoon na dëkkam bii di Tuba mel ni turam woowee mu cay gàtt nga alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dicrillah ala bi dicrillahi tatmainu alqulub aaya bu gudd la fa mu tàmbalee afa man yaalamu annama unzila ilayka min rabbika huwa alxaq min rabbika kaman huwa ama innama yatazakkaru ulul albab allazina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna almithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب allazina yooyee ci la yii ñu wax bokk wa tatmainu qulubuhum bi dicrillah ala bi dicrillahi tatmainu alqulub alqulubu alladina amanu wa amilu salihati ñooñee ñoom tuuba lahum wa sanaha bu ëllëgee sëñ tuba gàtt nga ci dëkk bi tudde ko turu dëkk bi wajal ilahi maskani tuuba abad misla smiha misla mooy yaari daal ñooy tolloo kepp bokk ay numéro waaye bu doonee ab dëkk boo xam ne bu ëllëgee tuuba lay doon lillazina amanu wa amilu salihat fii ci adduna na doon barab boo xam ne dañ fay jànge daara barabu daara barabub sottante xalaat yu jëm ci lu amal nit adduna ak alaxira lu amal nit njëriñ lu adduna ak alaxira barab boo xam ne lépp loo xam ne ak dégg ko danaa jafe moo xam muy diine te diine moo war a àtte waa adduna bu ñëwee fii doy gis ca la ko doy sëkk lu mu yóbbuloo moo tax ma ne ndaw yi nga xam ne dañuy jekki-jekki na tëll wax loo xam ne day yóbbee loxo gémmiñ wala ñu def ko Sëriñ Tuba wax na ak ñoom ci dëkkam bii ñu bokk ak moom dëkk ba bañ fiy toxoo dem feneen su boobaa waxatut ak ñoom te feneen fu ñu dem itam ñoo leen kañ ngeen di ñibbi xam nañ fañ dëkk Tuba la Sëriñ Tuba daf ne mbooleem gone yi yi nga xam ne toll nañ ci léeg-léeg ñu woo rajo yi wax ak ñoom wala bind ci journaux yi yéen lay waxam su ngeen bañee gàcceeg adduna fii buñ ne la naka mu doo xam lay wax buñ ne la foo ko teg doo am foo ko teg su ngeen bañee loolu qaddimu taalluman ala am yaa machara subbaani in xiftum xajal gàcce ak kersa fa qaddimu taalluman ala amal dal na nit fi barab julli korite lañ ko doon julloo ci bitim réew ñépp ñu ne ginnaaw diwoo nga fi alhamdulilah rabbil alamin ndax yàlla mu mel ne goog Tuubaa ga ñu taas ko ci daal di ñoom ña fa newoon ca saa sa ñu soppi suuf sa suufu Tuubaa soppi dëkk ba dëkk Tuubaa jël kookee bokk Tuubaa yow teg ko ca kanam ñëpp taxaw mu ne ay ca bokk li xaamal benn waaye ne ko sëriñ bi julli tabaski wala korite kenn du ko li xaamal mu ne allahu akbar tàmbalee jàng ñu ne ko da nga koy wax juróom benn yoon ginnaaw boo kàbbaree kàbbar bu jëkk sooy jógaat nga def ko juróom benn yoon bañ cee limaale bu njëkk bi saa wala neex nag mën nga ko jàng mu daal di koy julla noo neex xanaa ko ña sa ginnaaw lañu war a woo kenn ginnaaw moo ko xam moo ko man mu ñëw jiite waaye am na lu ñu ci jublu woon loo xam ne yàlla du leen ko xañ ñoom moo tax Sëñ Tuubaa ne ku ci ragal gàcce bu ëllëgee lim waxoon loo waxoon mu ne waxatuma ko na jiital jàng xam-xam fa qaddimu alaqaida sunniya mujaradatin an miran wa firi an firan wa miri fa saaricu turan ila taallumi wa jaahidu nufuusa bitafahumi jamono yi ngeen tolloo ci wut xam-xam kenn du ko weesu sax sallallahu alayhi wa sallam nee na min al mahdi ila al lahdi waaye nag nit dana toll jamono yoo xam ne lu ca bari da koy raw te mi ngi ci wax Sëriñ Tuubaa ci kanam bu ngeen bañee kersa googu gàcce googu yi wuti leen xam-xam na ngeen ca jiital xam-xam yi jàngale pas-pas ak sunna ba fa ngeen di waxati seen wax dañ ba set wicc ci ay duuf sos ak werante woo xam ne doo mën a teg dara rikk gaaw leen balaa jote de digg ni ko xadis ba waxe woon ci juróom yooyee waxtani moo xamsan xubaylan xams kama bihi amar xayru ins wala tuaxiru taalluma ila kibarikum fa daaka yuxrimu lhuda bu leen ne naa xaar ba am bourse naa xaar bañ lijjanti ma naa xaar naa xaar naa xaar waaye gaawantu leen ndax bis yi moom mënta xaar moom rawatina fal mawtu aqrabu wa adha wa amar wa baxtatan yaati wa ma anhu mafar suy xaar bourse xamut day deewa ci diggante bi am deet te Serigne Souhaybu bi doona ci téeréem ba ne li muy wax bu mag bu mag tax ne moo ko bu mag defee ne moo ko tax a jóg waaye bu gone ne bu gone ne naa xaar ba mag ndax mag day dem gone di dem ku dul mag di ndaw di dem Sëriñ Tuubaa ne wa kullu man lam yatabaadar fi fi sibaah ila taallumi wa qaadahu hawaah fa qalla an yanaala fihi almatlaba id faatahu taysirahu waqta sibaa ku toll ci jàng daa war a jàngi gaaw lu ko mooy ak mag dikk wala ñu wutal ko kër léegi lu ci nekk bu ca amee soxla day dem guddi ndànk ci benn waay boo xam ne moom la yaakaar ne ko waaw nu ñu tudde doom ñu jullee néew ñu jullee na fi ab néew ba tey ñi indi woon néew ba ne lii de doyuñu ab néew boo koy jullee fu la neex mën nga faa taxaw waaye nag lu ci nekk gannaaw dañ ko tënk dañ naan su dee góor na taxaw ci ndigg li su dee jigéen na taxaw ci wat bi am ku ñëw ne coow ca tànk ya yàqu ko daal di wax la muy wax benn rakka la benn kabar la kabar ba mu neex ko mu ne asalaamaaleykum am ca ñu indi woon néew ba rocc benn waaye na ko jullee lañu néew bii ngir yàlla kon kookee daa mel ni moo gën a yaayoo si la néew bi moo tax mel na mag boroom xam-xam la woon rahimahullah daa ñëw ci ab dëkk fekk fa ab néew benn waaye waddat na waddat na jaww ca kanam duyu ko ndax nee nañ dàq ko mi ngi naan moo gën a mar dàq ko mi ngi koy naan moo gën a mar dàq leen ko mu naan jullee ko mutta moom la ñuy ëpp yaakaar ci dal di ñëw rek mu daal di daw taxaw jullee ko taxaw si kanam boroom xam-xam boobu daal ne déet néew bii kat yàlla xamal na ma ci loo xam ne du ku ñuy jullee ndànk jullee néew ndànk lañ ca xamoon wax ko ci suuf kenn bañu dégg waaye kii moom yàlla xamal na ma ci loo xam ne kenn du ko wax ndànk dañ koy wax ci kaw kon boobu bisimilah dañ defar sàppe si mu daal dina roseet taxaw ci ginnaaw te moo fa daa jullee moo tax Sëriñ Tuubaa ne fa saari'u lil ilmi mudayinina naawina wajha llahi ajmaina ci tënk ndaw barabam bu mu war a toog di wax ñu di ko déglu mooy ña muy jàngandool xam-xam wala ka koy jàngal xam-xam ba ca kanam a kanam a kanam a kanam su ko defee su su su génnee fu muy dem bu ñu ko fa yebal ña ko fa yebal bu ñu ko xoolee ba wóolu ko du leen teg gàcce du fa am gàcce du jut gàcce ñam fekk waaye mag ñi nga xam ne ñoo war a encadré gone mu jàngit Sëriñ Tuubaa wax nag ñoom wa man naakumu an ittaallumi fa huwa xalifatu layn almujrim fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowma aljazai walwajal Sëriñ Tuba nee na ku tee nit jàngiwut xam-xam ba am xam-xam ba noppi ëllëg si biir ñu yaakaar ci moom ay yan yu dis gann bu ñuy seet ku fi nekkal seytaane bu ñu la teggee duñu ko gis ndax kat koo xam ne mënut xamut te buñ ko xamalee mën naa xam buñ ko mënalee mën naa man buñ ko seetaanee ba mënut xamut ña koy seetaan bu ñuy wuti xalifa seytaane ku fi nekkal seytaane nañ ko jàpp ndax kat kan yabal muy yàq lu mu yàq moom moom ñoo koy bokk bu yamal xiyaamee dañ koy tegal wàllam tegal ko wàllam id kullu man fi da zamani manaa min attaallumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin id il amal in lam yakun bil ilmi shabahu xalal képp koo xam ne day woye fala ndaw ñi am njàng naan la amul solo kenn du la ko laaj njàng mu mën a doon nag ndax boroom xam-xam ak lu mu mën a xam bu toog ak yow di waxtaan danga xam ne kii am na xam-xam ñu doon lim si nag xam-xamam ci lu mu jëm waaye boroom xam-xam dëgg du wax waxi dof du ko def du na mel itam nag du mel ni dof képp koo xam ne am na ay moyen moyen lañ koy waxe ci waxi jamono mooy lu doy sëkk lu mu mën a taxawoo doomi jullit yi ñu jàngi ba am xam-xam defu ko Sëriñ Tuubaa tëkku na ko nee na moom su boobaa jotewut ak moom dara bu yomal xëyaamee Sëriñ Tuubaa day toog fee yàlla réglé koo kee kon ndaw li nga xam ne ci jàng la toll ak mag mi am lu mu ko jàppalee ba mën a jàng ñoom ñëpp am nañ ab yan bu diis ci lay xew léegi ndax gone daa bëgg alal jum faje ay soxlaam ndax loolu la fi fekk daa fekk ñu yore oto yu baax di sol lu rafet di dëkk ci kër yu baax mu bëgg ko waaye dañ ko war a wutal métier mooy bu dee koo xam ne dañ ko féetale ci ni Sénégal yi séddalee xam-xam mooy métier ñu jàngale ko ba mu ne ar yar ko ba mu ne nër ni ko mag ñi daan waxee yee ko ba mu ne jar su ko defee su boobaa sa jaan wàcc su bañee bañ bañ ba ñépp xam ne bañ na du tax nga wàcce say loxo ndax léeg-léeg nit dem ci ku jigéen di ko bëgg soxna mu ne waaye balaa bàyyi topp dina ko jaral lu nekk coono boobu ak alal ja cay dem xaajuta àgg ci fexe ba gone xam sëriñ Falilu Mbakke doomam ci ñuy wax sëriñ Mamor ma ma nettali nee na daf ne diw ak diw ci ay doomam saa bu ngeen ma indilee ab kaamilu alxuraan bu ngeen bind ci seen loxo te bopp ko bopp mooy bañ ko bind ko te bañ ko xool danaa leen yóbbu Makka te boobu bokk na ci li nit ñi daan ñaanal nit defe ne mënta am yàlla na nga fekk matuk jumaa ji ak yàlla na nga dem Makka defe ko nañ ne loolu adduna du doxu dox ba mën a sotti ba ñu indee seen kaamil ya mu ne leen alxurru xurrun maa lam yatakallam la ma waxoon danaa ko def daal leen di yóbbu makka ba ñu ñëwee mu ganal leen nii ganalee ko demoon makka ne leen ñaanal leen ma yéen ginnaaw yéen a jóge ca rasul rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñooñu tàmbalee dafe ne kiilu ne seen adduna jeex na mag ñam toogaloon kenn ca ab sëtam a ngi nii toog wala ko xam doom la ci moom ab sëtam la ak doomam ñii nii ci jotaay bi yàq ji ne ko waaw wàllu xam-xam doo leen ci soññ sëñ Fallu ne ko waa alxuraan de mooy ndeyi xam-xam yi man kat foofu laa ci yamele ak ñoom ku ci sax ci jub foo toll ma toll fa ak yow wàllu xam-xam bi nag képp ku ci daje ak say nawle rus yaa xam waaye soo may dama bëgg jàng foo ma wax ma yóbbu la fa loo ma laaj ci njàngee ma def ko loo ma ci sant danaa ko def amut guddi na amut naaj booba yan yan bu dis la woon at moomee jëlee nañ ci réew mi lu ëpp fukki nit yóbbu leen Arabie Saoudite loola ñu ngi koy waxtaane ba léegi te mu ne loolee mu doon amagu si néew de léegi la alal di gën a bari ñi gën a ñi bëgg a jàng léegi la gën a bari ndax jamonoy xam-xam lañ toll jamono yoo xam ne léeg-léeg nga dem si jotaay ku amul xam-xam doo si bokk duñ la laaj damay contribuer du tax ñu jox la kàddu ndax jot naa ak foog naa soxla wuñ ko ci jamonoy léegi ba tax na ñi nga xam ne ñoo yilife nañ jël seen responsabilité dekkalaat jàngukaay yi nga xam ne Serigne Touba bàyyi woon na ko fi Serigne Touba mi ngi doon fàttaliku démb li ñuy wax empreinte digitale nii ñuy xamee ku def nangam ak ku ko defut ci say baaraam Serigne Touba ay waaraamam dana wétti ci jamono ba léegi séddale woon na yëf yi yenti xaaj yoo xam ne moo doonoon cosaan li mooy fondement bi ba fi mu ne nii fondement bi mi ngi taxaw lu ca way teg mu yomb lool wutoon na suñu Abdourahman Lo mu jàngale alxuraanul karim dem teg ca pegg ba siñ mbakki bu sub ñoom ñaar seen dëkk yi ñoo taqaloo fii ba ci Tuubaa ba léegi ndaam ak ala ak ak al azhar azhar boobu suñ cerno bu sa dëkk suñ mbakki bu sub moo fa dëkkoon ku suñ Abdourahman napp ci yow nga dem ca moom ca saasa da ngay dox lu toll ab kilomètre rek àgg jàng fa xam-xam su dee koo xam ne weesu na marxala wala étape ba suñ mbakki bu sub doon jàngalee dem ca maam Cerno ndax day fekk mu doon mag lu ko moom ci di xamal ni ñuy jëflante ak protocole ni ko mbokk mi doon waxee léegi ak diplomatie su dee koo xam ne nag daa bëgg ko defaral ak ruuxam fexe ba mu daan bakkanam ci lu nekk moom bakkanam te bakkanam bañ koo moom mu boole ko suñ mundumbe mbàkke muy ñeenti nit ñeenti kuréel yoo xam ne benn bu ci nekk li mu defar ci aw nit kenn mënu leen a lim suñu mbakki bu su moomu ay loxoom a ngi fi ba fi mu toll nii téere bi nga xam ne ci la ñuy defar waxtu yu dog yeeg yàpp yi suñu mbakki bu su moo ko taalif rek leen la waa Sénégal rawatina waa Touba moom gii fii dépare waxtu julli ak waxtu dog ak waxtu jàpp moo ne defar na ci mirage itam day ak calcul xisaab wala riyaadiyaat téere boo xam ne bii bari na ñu ngi tudd te mosuñ buñ buñ ko gisoon danañ ci jàngaan ak ni ñuy xamee fa xeb la fii ñooñu ci daal Sëriñ Tuubaa la génn mu ne moom Cerno itam day application boobu tatbiq bi mu doon jàngale def na ko defati ko defati ko doomam suñ Basiiru Anta Ñaŋ nee na am na bés muy julli julli koo xam ne daal da ngay taaye jógaat kon du julli suba du julli suba taaye jógaat moom du julli suba bi mu waree taaye nag mu jóg taxaw ñu def la leen sariya sant te moom la doon dund ak ñoom subhanallah subhanallah mën naa am dégg ko mu jóg taxaw ba ne temm bi ñu ragalee nag mu tax mu sasab rakka di leen romb ci julli gi ñu jóg fekki ko loolu lañ santaane ba ñu sëlmalee fekk waroon naa sujjóot balaa sëlmal ndax ab jataayu taaya la bàyyi taayaay ak jataayam mu ne ana ku doon wax subhanallah ñu ne ko diw fekk diw daa defe ne daa wax lu daa wax ay ndax ku toll ne maam Cerno nga ne ko subhanallah mel ne daa xamut daa mënta julli maam Cerno ñokket dem ca néegam indi ay yére maanaam mbubb ak tubay ak njiitlaay ak kaala ak mbaxana ak i dàll akub der ak satala ak kurus ne ko waaw góor yow de xuuma kenn waaye yow bul toppati ci ginnaaw ku dul juum ndax li tax nga war a topp ci kuy juum li muy def lu mu def nga xam ko lu mu def nga xam ko bu ne day juum nga dem nga xam ne mi ngi juum su dee dolli wala muy wàññi nga xam kon jàng bi tudd naa ci ndaw ak mag mi ko war a jàngaloo ji waaye ki ñuy topp ak ka koy topp ñépp dañoo war a bokk lenn li ñuy def ñu xamandoo ko ñoom ñëpp ba fa muy yàqoo ñu xam ne mi ngi yàqu sëriñ haada si foofu laa jaaxale am na ku fa dem ci bokk yi muy julli ne ko jiitee kooku ne ko déedéet mu ne ko ankay mu ne ko déedéet mu ne ko ankay julli ba noppi ma wax la mu julli ba sëlmal sëriñ haada ne ko mag ak ndaw bu ñu tasee te mag mii xam na ne li mag li nga ndaw le xam-xam na ko na jiital ndaw la ndax su demee bay juum mu ne ko yaa ngi juum ndax léeg-léeg mag jiite ndaw te ndaw la gën koo xam fuuf te buy juum du ko mën na yaa ngi juum waaye la dox diggante wax ko ko ak bañ ko koo wax ndax école bu maam Thierno mi ngi dox ba tey su fekkoon ne école bu maam Thierno ba daaray maam Thierno ja ma ngay dox ba tey dañuy bokk xam ne buñ julleegut buñ tàmbaleegutu julli waa ji moo tànn topp ci ki muy topp waaye buñ xasee ba liqaam ba allahu akbar jëkk yi jib ñoom ñaar ñoo ci bokk yam kepp te waru buñ ko seetaanee ak julleem yàqu seen ak julli yàqu walla ci te seen yoon nekku ci ku yàq ak jul te tey ko am na lu ko cee war am na lu ko cay war ndax polay ni loolu po fo te yàlla nee na diggante asamaan ak suuf dund fi dara ngir fo julli ci la bokk kon ñi nga xam ne dañoo am kilifteef ci ay ndaw dëgg-dëgg nañuy geesu ndaw ñi nag nañu leen di geesu ci tuut si ñuy am di leen te may ay mbaquus yu ndaw di leen tàpp tàppal di leen woo kaay la ñu añ kaay la ñu reer ni ko mel ne mbokk di defe yàlla na ko yàlla fay kaay ñu ànd fii bu dul boroom xam-xam it su takkoo ak ñoom bu yàggee dana amoon xel ci lu nekk nam ca war a def ak nam ca wartu def waaye lu ñëw bu dee lu tuuti nga ne lii ah tuuti la jëru ko su fekkee lu xaw a tane la mu ne ah lii de ëpp na ko ne xobu xël la na ko mag féetewoo ba leneen ñëwaat kañ la leneen di ñëwaat diggante boobu mu ne ndaw ndaw le moom ci lu muy dunde ak lu muy wéye moo tax léeg-léeg ñu génn rek na ré- na réel ñu defe ne matt gu dàmb la te fekk garab gu dàmb la sax war garab gu daan kon ndaw ñi nañu delloo si war seen xel xam ne wéeru ci yàlla rek moo wóor politique fi la ñu ko fekk fi la ñu ko bàyyi waaye ñi nga xam ne ci lañ jeexal seen dund sax mënu leen a dundal ñi nga xam ne nekk nañ ci ba am juróom-ñetti fukki at politique mënu leen a dundal suuru leen buñ koy naan day mel ne ndox muy wa muy yokk aw mar luñ gën di màggat di ko gën di bëgg di gën di yaakaar seen yaakaar di gën di tas kon koo xam ne ndaw la daa war a wuti xam-xam wuti métier jàng su ko kenn jàngalut mu laxas na ko mag ñi doon def sëñ bi doon fàttaliku démb faboon na sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallu dalal la leen dalal la leen boppam booba am na jot bañ fer ij mu boole leen ak maam sëñ Abdourahmane Lo ba muy dem Jolof sëñ Abdourahmane ba mu ci noppee jox leen suñu bakki busu ba mu ci noppee jox leen maam Thierno mu wan leen ni ñuy def sëñ Mandumbe di leen tarbiya léeg-léeg ñu bind ko leetar boo xam ne dañuy sàkku ci moom dara ngir mooy seen taalibe baay te loolu la bëggoon ku koy wooye mu xam mu man ko lool waaye da leen doon tarbiya xañ leen ko ba mujj ñu ñàkk ci moom yaakaar ci ne kii moom loo ko laajee du la ko jox te moo ko si jublu woon noonu la leen Sëñ Tuubaa waajal woon ñu doon boroom xam-xam yoo xam ne dañoo jàng ba ne ar moo tax ba mu duggee ci seen loxo ak ñu topp ci ñoom kenn ku nekk gis nañ lañ ci def seen kem kàttan ci seen jamono kenn ku nekk marqué na jamono kenn ku nekk marqué na jamono ci boroom xam-xam yëpp ku séqaloon dund na ak ñoom xam-xam bu leer ba ñu jàpp leen ba ñu jàpp Sëñ Tuubaa ngir ñoom bañ jàpp sëñ Tuubaa jaare ko ci sëñ Moustapha wala sëñ Fallu wala ci sëñ Saliw waaye nag saa su nekk dañuy jàpp sëñ dañu lay jàpp ngir sëñ Tuubaa loolu yàlla nañu ci yàlla musal loolu gàcceeg ab murit la saa su nekk lu ñuy defal sëñ Tuubaa tax waaye dara doonoo ci dara loolu bokkut na fàggu sëriñ bi kon su bis bi mel ni ñëwee ay inxiraafaat am ak i an inxitaafaat jekki-jekki lajj bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk naka jekk ba nit di nit ba tey bëñ ak làmmiñ ñooy daan de ci borom waaye léeg-léeg bëñ na ko ngëj fekk daa juum waaye tax ñu tàggoon kon nañu woowaat njaboot gi laaj leen lu tax ñuy fudd li ñuy wax sinul mu raaxaa ku ci toll da ngay defee ne bu asamaan si doon wàcc sax boo ko taxaw boo ko joxee mu taxaw da ngay defee ne dara tawu la su rajo yi neex journaliste yi bari bëgg siiw tax lu nekk nga wax ko te bàyyi woo xam ne bu ëllëgee da ngay màgg yor ay yor ay yan yu diis ñëpp topp sa ginnaaw ñu génne waat archive yi ndax xaw ma lu mën a sànku ci jamono ji waaye lu ci nit waxoon wala mu defoon ko fi rawatina mu mu wax ko wala mu bind ko ci journal journal 1940 ba léegi si ñu ngi ko jàng ñu ngi nett yi waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te néew na ku ca mën a wax dara ci jamono ji kon nañu ubbiwaat daara yi dara si tubaay yi te yaraat njaboot gi te ma waxaat ko di leen mosal ci yenn yi ruus nag ku ne ci kaw garab ga yeey ñor dëgg-dëgg soo daggee léeg-léeg juróomi doom waddanal benn doom boo walla boo ko jëfandikoo ba mu xaaj nga sànni ko moom sax ñi ci suuf waaye am na yoo xam ne mer rekk la amuñu fu ñu ko waxe te amuñu pexe te mënuñoo dal ci kaw kenn ñu ne xaaral ma jar rajo bi te xelam ko ne lay doon xamuñu ne su kenn waxee dañ naan waa Tuuba te am na ñoo xam ne yëguñu te ñu su ko defee ñax ku wow lakkaale ko tooy sax te fekk jegewuñ far yàlla na mu yàlla defal dégg ak topp te xiir ñu ci ay ndigalam te dimb lañu ci pexe ak jumtuwaay yu mën a yara jabar yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin